kii mooy Serigne Modou Gaynde borom kéemaan ñaankatu yàlla bu mag bangook doomi kër sàmmaraqi jóobeen la di fekki ay taalibeem fu nekk ci àdduna bi ñépp ko xam ci résultat ci wàllu ñaan Serigne Modou Gaynde borom kéemaan doomi kër sàmmaraqi jóobeen bi ca diwaanu Saalum moo leen indil ay produits yu bees tàq yu jëm ci wàllu ngóora lu xeetoog éjaculation précoce lu jëm ci wàllu jigéen bu taxaw wala boog jigéen bu mënagul am doom ak yeneen xeet yu ni mel Serigne Modou saafara gi mi ngi tudd xam ak Saalum gi mala la ko wax mudi garab gu yeme ba ag ci xam xambak salum gi keur sa sàmbaraqi joben bi mo len ko indil ku ci yalla dimbali nak ba nga jot ci sa aajo fajuna na ci saasi yamul fofu de serigne modou gayde borom domi keur sa sàmbaraqi joben bi amna sangat wo xamantane dafa jëm ci ubbe kay mo xam nga bëgg bayre wala bok nga yittewoo tukki mu dëgër lol nga déposé say kayit bëgg ci jot ci ni mu gën a bi daf la koy defal yow mi nek bitim rew bëgg am carte séjour woo mbaa nga yittewoo green card résidence wala nga bëgg british passport fenn rek laa lay yabal jokkool ak doomi sàmbaraqi jóbeen bi saalum-saalum bu mag bi ki nga xam ne bu coow li baree du moom waaye bu résultat yi baree moom la nee naa ko sëriñ bi sénégal da yittewoo boo tukkeetee ngalawaay bu fa yàgg ah mbokk yi mbir maa ngook li nëbbu woon feeñal naa ko bu la dem bi yombee gaawal gaaw fekki ko ca jiwaanu saalum ca kër sàmbaraqi jóbeen bu la dem bi yombul nag mën ngaa jokkoog moom ci numéro yi yi ma lay bëgg jox 77 972 98 81 wala nga woo ko ci 77 085 49 91 cey doomi kër Samba Rakki Njoobeen bi cey Serigne Modou Gaynde borom Kéemaan Kéemaan la daal saa neexam locataire yi jar na bàyyi xel xiro xiiroo beeg yo bi ci bir kër gi lay xewe jàllo mi moom kër gi amul suwa tey muy jaay kër gi ndaama aaye ko ko ñaan ku faransé la Maeli, isan bolt. Kena bayar lolo ay kan isan bolt. Yo ya gana kamu Senegal fundo. Mau kamu ragal nggak? Ah. Senegal armu bikin di semua Lolo nyu kamu. Armu bikin di Senegal mau viral. Gini rek mau lolo. Kayak hmm. mau nyu share jasi, mau nyu share pagar. Iya, mau nanya ke saya, mau viral begini Senegal rek, jap hanya betakan. Kau lolo rek? Kau mau bawa kemana ini? Nah ya, unit plus enggak parce que dañ ko bañ ban la gaaw lool lool lool li tax nit di di ñame fital na ko def ci yow ah, d'accord lool du problème bo ma koy taxaw diko jël mais mi ngi cool wa cool cool ben affaire la bëggoon hmm. lu photo bi waaw te jëlel mako ok c'est possible parce que non bi nga waxee pël photo rek automatiquement xamna fa fréquenter dama ko war a jëlee foog nga indil moom dinaa ko indi moom li may def ci moom bariwul sax tegoo ko dara waaw ok pël bu ñemee amul dama ko rek lay doon mat na xel bi ci Diallo mi moom kër gi amul suwaa tey muy jaay kër gi ndaama aaye ko ko waaye ndaama kenn demul mu des ndaama amul xanaa mu jaay la am na ku nekk foofu ah. eh Diallo. Hmm? eh. Hmm? Hmm? sëñ naa dem. wuyul gaynde gi. kan mooy nekkee gaynde. ma ne nga wuyu gaynde gi laa wax. kan mooy nekkee gaynde. Sénégal benn gaynde moo fi am Adama Fall. Adama Fall. lan la ma bëgg. bu xaw. ma ne boo ñëwee di nga ko xam. yéen a loolu la nga xam ne kon nu mu nekkee. أنا بفعل بالسير kafal yau la don seti ba mai doye ha o mako sa legi set dafa jar daw loy daw a dama do a footing ha ha jaral li eh ha are yo lele yaay kër gi ndaama aaye ko ko waaye ndaama kenn demul mu des ndaama loolu ba yëpp a si kontaan. ma gisuma ma gisuma ma xam ne. allo ma ñëw. waaw Diallo mii lan laa daw Diallo waaw kii lan laa daw. eh lii du jàpp. looy naaw. ah looy naaw. ana pël Fuuta. pël Fuuta. photo gisuma ko de wax dëgg yàlla nag gisuma ko ah do sa borom boo ana pël fuuta laa wax man fii la ma toog de maa ko dàq léegi mu dugg fi mënu fi échappé nii te ba jaar fii te romb la ana pël fuuta génneel pël fuuta bi yee jaar daw dugg dem si mbaare eh. yooyu ah? naaw mën nga mën a ci fii am. ah déedéet. jiw ma sax dama. kay taxawal fii dama ñëwoon tàggule ba. mën nga mën a ci fii taxawal nii. nii nii. da laa def si ma kër taxawal nii da laa def si ma kër. sumil mbax na mi. benn summil yëpp taxawal nii lébu eh lébu eh lébu foo jëm foo nga toog ñëwal nga toog ba mu pare ci gi war a jooy war a jooy jooyul ula jooy la ñëw si ma kër ba pare andil ma problème leen di daal naataal da laa dem a kër waxati boobu ma ne eh tëjal sa gat yow la bàyyi jooy law jooy mun la bari joy Ada, law joy lama la wax si borom bi bi mo romba gisuma billahi gisuma kay yobul mo bu yaay boy yes wa boy no wa ko sa mu de na ñaar nga am man da sonlo ak li la genn gi li ngay fen naan kon photo bi dugul billaay gisuma nga barka yàlla bi billaay gisuma nga ah, fii mooy daw làqu bi billaay gisuma nga kii man gi photo gi dama gis xam nga fi kan yow ma tapati rek maam yàlla billaay ma ñàkk man day gisuma sàmb sàmb gën na gisante moom sàmb dal ma bàyyi oui moom est-ce xam sàmb di ko génne wala nga dem wax la eh. awit dima ma rek ngir yalla man ñom bi ñaa kumpaloo in la ñew sa kër sàmba on na ma téléphone mané ko dew est-ce que aw gis na ma si kumpulo bobu ah lebo mën nga génne sa mbolo mëno ko ah adam kon day tay xam na ma ne kon tay de moom mën na ma dé rek billahi tay moom mën na ma dé rek waye sàmba xaw ma mu ne sàmba xaw ma mu ne jugal ah jugal waaw adama sàmba Lebu, jugal dugal taxaw dugal génn sàmm waa ñaan la jàmm jar na bàyyi xel xiiroo beeg naayoo bi ci biir kër gi lay xewe jàllo mi moom kër gi amul suwa tey muy jaay kër gi ndaama aaye ko ko waaye ndaama